je pense que la solution moins ni war wax ni wax dina metti nak mais ci communication biñu ñu technique ni comme ni def ni war nañu mën trouver solution maa ngi lay wax démb ci ndeyu daara yi mané pour man ñoñu war nañu mën wax parce que am nañu spécificité war nañu leen jox cadeau am na ñoo xam ñu ngi topoto ay xalé yo xam dañu am lago. ñoñu

donc loolu ñun ñoo war a góorgóorlu xam yan mooy spécificité yi ñu jéem a kan mooy spécialiste bi ak koo xam ne nañ ko ñu jox ko kàddu gi pour mu wax ci tour ñooñu man non la gissé organisation te warul jafé warul jafé donc vraiment euh d'accord tuma parce que dama doon ne ku nek rañ ñu ko affecté mais day indi problème day indi problème te wax deug yalla kilifa di wax ñu koy euh, wala ñu wax c'est pas préparé c'est pas etc. franchement c'est échoué Et y bëggul le euh, alal bi ñu mobiliser nit yi di etc. journée bi ñëpp ressources yi taxaw et on passe à côté de l'objectif franchement ce serait dommage te a une première édition une deuxième troisième bi comme xam nañu bële li ak li baaxul ñu répéter la même chose te xam nañ ko wax dëgg yalla boba ñoo ko té c'est vraiment euh, nañu avancer ci li gën je vais insister ni effectivement projet de loi oui, c'est au cœur de la chose il faut nous jox nous donc nous trouver les moyens peut-être pas l'EP, mais il faut nous présenter projet de loi il faut nous voir il faut président le acteur yëpp etc. mais c'est important nous jox à ak du projet de loi parce que c'est ce projet de loi qui va être fondateur donc nous ko occulter nous. depuis longtemps on en parle donc si nous avons avancé ba am projet bi euh, war nañ ko a fait bu euh, euh, le 27 panel c'est important on a invité tous les acteurs du bokk et on s'est dit aussi qu'il faut le 28 président Khamlal de la panel donc mu am restitution Mais bi ñu un panel ci difficulté financière Le ah, panel bi de jour. la conclusion est encore président. Les conclusions pour nous mener a def le lien entre panel bi et euh, euh, journée 28 euh, les badges et cartons d'invitation Maintenant, tam maa commencé ragal yo na ngay dal suma xel moy mooy su dee tey jii wuñu carton yi ak badge yi et cetera damay commencé un problème problèmes. il faut que cartons yi dem il faut que xam commission yi nak lañ ko organiser ku nek xam fi mu euh badge yi parce que amatuñu temps donc lolu tay, tay, tay, tay, tay waxuma sax suba tay, war nañu ñi fi nek yépp xam ban commission la ñu nekk ñu yóbbaale sen badge ñu etc lolu mom euh mënul xaar suba. waa ak commission yi ñu xam. parce que euh, ils ont raison sen sen événement la donc moi j'aimerais bien ma xam kan moy président li, kan moy le commission bi dès demain ñu commencer les présidents de commission ñooñu la ñu commencer di waxal ñooñu lañu ñu war a commencé di waxal waratuñu wax ak direction daara wala dépré wala et cetera on doit commencer donc à parler avec les organisateurs benn xalaat rek ñu may dégg sànq ci ci damay ne bon peut-être hein, su dee baax na wala baaxul mais su dee loi la wala ñaan Sénégal bi ma xam man de su ma amoon salaire kenn ne ma am na taxe boo xam ni da ngay remplir loi bi permettre na ko nga joxe ci sa salaire. 0,05% bo xamné ci dara la yem def na daara dina am xaalis euh, maintenant proposition la ak ni ñu koy structuré ak ni et cetera mais je pense que tay jii ñu bëri bëgg nañu jox l'islam mais mais xeyna na dañu amul cadre bi té 0,0 ñu koy defal entreprise amna na ay zéro zéro taxe xawma pour le taxe pour euh waaw Vatican donc buñ tamit mën mën am taxe bo xam de 0,0 bo xamni euh avec autant de Sénégalais je pense que ñu bëri dinañ ut barké té dinañu euh, nangu joxé donc lu mel noonu mais yooyu yëpp ci waxtani ñu nar wax la ci panel yi ci financement bi et puis après mu nek ay propositions yo xamni ne mën nañ ko def.